waaw bon xam nga délai bi tamit euh, je crois que am na fi nga xam ne bu foot fa toll woon ci ci niveau de de modernité Sénégal deux semaines yi sax bëri na cest si les candidats aient la possibilité jël seen avion dem Matam jël seen cavion dem Kédougou ainsi de suite et tout je crois qu'on aurait pu régler un problème mais malheureusement malheureusement pour que nga jógee fii dem Kédougou il te faut pratiquement vingt quatre heures. Bakel Bakel ainsi de suite. loolu yëpp voilà tali am Bakel. justement loolu yëpp c' est des c' est des c' est des yi nga xam ne. Euh, c' vrai qu' a réduit la campagne à deux semaines gis nañ ñi nga xam ne ils ont réussi. à faire peut-être euh, entre cinquante à soixante-quinze pour cent du territoire. Mhm. mais daanaka personne il y a aucun des candidats qui a réussi à faire euh, le, le, du territoire à cent pour cent il y en a pas. il y a des yi nga xam ne nit ñi dañ ko tëb. Euh, viser peut-être les zones urbaines pratiquement boo xoolee campagne bi yëpp les dix-neuf candidats euh, ñii nga xam ne ñoom demoon nañu ci parrainage bi dugg ci àll bi. Mhm. ñooñu boo xoolee ren campagne bi nii ils ont préféré aller dans les centres urbains. Mm-hmm. waaw ñii nga xam ne jotuñu woon dem parenage dañu toogoon nii rek xam par quelle alchimie se sont pour avoir des tey ñoom it commettre la même erreur topp ñi nga xam ne ñoom da ci parenage bi demoon nañu ci àll bi. Mm-hmm. ñoon nañu topp ñoom it des dans les centres urbains donc ce qui fait que moi je crois que ba tey jii. le délai de 21 jours est tout à fait raisonnable. ak ñeneen ñi nga xamante ni. waaw doon nañ tàmbali seen campagne. pré campagne. ba ñu baaree leen Khalifa Sall. doon na def mottali yéene def na yenn zone yi xam nga foofu jarul mu fay dellu. tout à fait ay Joal yu bëri jot na faa jaar bien avant. Mhm. Euh, waa euh, euh, Sonko yi coalition amul woon. Mhm. mais ñoom doon nañu def nemmeeku tuur. baare nañ leen mais quand jot nañu. def quelques te te bi ñuy def nemmeeku tuur. dëkku àll bi lañu ñu. la ñu ciblé woon woon. bu dee euh, parti au pouvoir euh, tournée économique gi prétexte la woon. Mhm. pour di wër réew mi di ko wër di ko a donc euh, kon ñeneen ñi ñeneen ñi la ñuy wax. ñeneen ñi wax moom laa la wax ñoom pratiquement ils ont été handicapés mhm. ah. par ce par ce de ce ce ce cette réduction de des jours de de la campagne mais li leer ba leer mooy les messages. ont dû bien passer parce que tey jii. même si on n'a pas atteint ce seuil de mortalité am nañu benn euh, maillage au niveau d'internet. au niveau de des médias yi nga xam ne dana permettre le Sénégalais fu mu munti nekk mun a dégg mun a gis. et am na beneen point mooy ñi nga xamante ni am nañu ay député. du ñu bokk ak amul député parce que député yi bu dee dañu leen jëlee ci zone yi gën a reculé. député yooyu ñu ngi seen base di liggéey te ça se voit. ñu nekk ay biir mbir ki laa nag ay biir euh, mburu ak ay ay genre dëkk yooyu ay Linguère et cetera. député yooyu est ce que xam nga du ñu soxla ñu ànd ak leader bi ci ci capitale ci ville urbaine ci xolman ville urbaine ci ci ci ci ci ville bi waaw ci zone urbaine yi mais député yi nga xamante ni ñoom jotoon nañ campagne jóge ci àll bi ñoom dañuy delluwaat seen base bàyyi leader bi nekk ci zone urbaine mais dafa mel ni li ngay wax ni bokk na ci li nga xam ne moom la président Macky Sall njëkk comprendre moo tax législature bi i se débrouille pour que ñu bañ am oto li ngay wax ni c'est ce qu'il a compris en premier mooy que les députés. Mhm. dinaa fexe ba bu ñu am oto. Mhm. mën a dem di campagne. parce que imaginel tey jii opposition bi surtout ay quatre-vingt-deux députés. Mhm. dotés de voitures. waaw nga xam ne seen oto bopp la. seen essence dugg mais ça ça allait faire des dégâts. donc moom très tôt il a compris ça. am na ñu ma gis de ci àll bi di def comme pas possible. non non tout à fait. ay zones yoo xam amul sax lamb. tout à fait tout à fait tout à fait mais ñooñu ils sont pas nombreux. Mhm. parce que man maa ngi gis ci yenn convois yi da ngay gis convois yi nga xam ne mais tu te dis ces gens là qu'est-ce qu'ils font autour du candidat. alors que ñii ils devraient être dans leur localité. auprès euh, de leur de leur de leur mandat. jéem a encore vendre le vendre euh, le projet de le programme de leur candidat. Uh -huh. mais malheureusement malheureusement je dis encore euh, y en a beaucoup. Uh -huh. surtout si au niveau de l'assemblée yi nga xam ne ma je crois que véritablement ba tey ji euh, seen véritable mission comprendre ñu ko parce que ni nga ko waxee li gënoon yombal euh, campagne ñu candidat yi. mooy ñii nga xam ne am nañu député waxuma sax xaar campagne bi mais bien avant. <laughs> bien avant. mënoon nañu coller. justement aux populations ba nga xam ne même bu fa euh, candidat bi egsiwul au moins dana am benn link qui a été maa ngi gis ci bëri bëri dëkk yu bëri nit ñi di kaas parce que leader bi jaaru fa waaw dëkk yu bëri maa ngi gis ñu ngi kaas parce que tel candidat jaaru fa donc loolu noonu ñii nga xam ne ñooy député yi wala maire yi loolu moo doon seen liggéey en faveur de leur candidat mm-hmm. mais bu ñu ko deful rek quelque part je crois que euh, ils n'ont pas rendu de bons services à leur état-major et à leur candidat